أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلى رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين ورضي الله عن شيخنا وسندنا شيخ الأكبر الكبريت الأحمر وصاحب الختم الأبر والغوث الأشهر والخطب المكتوم تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى والختم المعلوم سيدنا ووصيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التيجاني رضي الله عنه جعلنا الله ممن سقاه من فيد معارفه أعظم الأواني بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيولين دي نيو دي لين زيارة دي لين بالو أق دي لين بالو أق أه fas yéene waxtaane ak yéen tey lu jëm ci lu indi silsila tariqa bi fii ci goxu Sénégal ndax tariqa bi kenn jëlew ko ci lu dul silsila diwa ma jox diwa ma jox diwa ma jox ba ci Seydina Cheikh radiallahu anhu silsila boobu nag mag ñooñu ci nekk lañ bëgg ba ku nekk xam ko xam fu sa silsila jaar ndax abdullahi ibnul mubarak dafa wax ni wa lawla al isnaadu la qaala man shaa ma shaa bu dul woon wéer ay wax ci nit ku nekk wax lu la neex askanale ko yonent bi wala kon ku nekk wax lu la neex askanale ko seex tariqa bi bu ko dul woon jële ci ndigal kon nga gis ku nekk ni yor naa tariqa bi yor naa ijaaza wala yor naa leneen moo tax di xam tamit fu sa silsila jóge lu am solo la ci diine ki nga xamante ni moo la nose ci mbiru diine war nga xam mooy kan tariqa bi bari na ay ay boroom xam-xam bari na ay mag bari na ay ay silsila bari na ay yoon ku nekk nag ak fa nga roote ak fa nga tànqe firiwul ni naanuwaay bi moo gën naanuwaay bële waaye ku nekk xam fa sa rëbina jokk loolu am na solo bu dee fii ci goxu Sénégal ak Afrique Ouest ñaar yi ci ñaari silsila moo ci gën a siiw surtout bu dee ci goxu Sénégal bi muy Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti ak Abdou Karim Gaye Al Fouti dëkkoon ca côté Fouta Jalon wala ñi nga xamante ni dañoo jógee ci dañoo jëlee ci côté Mauritanie te daanaka ñoom tamit ci côté boobu la ñu jaare lu ëpp nag ci goxu Sénégal Seex Alxaaji Omar ci leen jële seen tariqa ba gàmmkat yi sax dañuy dañuy dañuy def mu baalaxa di jotal ni tariqa bi ku ko jot ci Sénégal Seex Alxaaji Omar la ko jox wala ki ko jox Seex Alxaaji Omar ak ko jox waaye ala kulli xaal loolu moom waxu parpar loola wala waxu ku ñàkk yër tamit istuwaaru tariqa bi cheikh alxaaji omar dëgg la ñi mu jox tariqa bi bari na wala ñu ci bari kii la jox cheikh alxaaji omar moo ko jox waaye am na ci ñoo xamante ni cheikh alxaaji omar joxu leen tariqa bi ku demee ni ki maam amari ndaab sekk bu cene ba maam amari ndaab sekk jëlewul ci cheikh alxaaji omar moom ci abdou karim gay ci la jóge te moom moo ñu ci bëri ci wàcce ne ba seen silsila foofu la jóge bu dee kawlax ñàkkul ni wuute mën na am ci fu ñu jële tariqa bi waaye li li gën a wóor mooy seen silsila ci Seex Alxaaji Omar la jaar wala bokk amee nan bu ci jëlee beneen bi tamit nit ñi dañuy jële feneen ijaaza te loolu yaakaar naa musal nañ ko wax ci wàllu jël fii jël fële ndax magi tariqa bi ñëpp benn lan boo jëlee fii feneen foo jëlaat tamit dafay yokk barkeelu rek walla mu nekk maanaam nga jël ijaaza fii jël ko feneen loolu tamit yàqul dara ci ijaaza ba nga njëkkoon a am walla dara walla dafay wàññi ci li nga njëkkoon a am dara déedéet bu fekkente ni waa Tiwaawoon lu jokk ci ñoom ñoom ci Seex Alxaaji Omar la ñu jële Seex Alxaaji Malik leeralal na ko boppam nee na wa sanadi fi wirdina tijaani mumiddi ahli xadrati tadaani sayidina xaali an cheikh omar an sayidi muhammadi algaali al abar an ittijaani an irrasul salla alayhi xaalixul asil nee na ki nga xam ni mooma nosee ci silku tariqa tijaani mooy sama nijaay muy maam alfahima yoro moom moo jëlee ci cheikh alxaaji omar cheikh alxaaji omar jële ci mouhamadul ghali mouhamadul ghali jële ci seydna cheikh ahmed tijani seydna cheikh jële ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent bi salallahu alayhi wa sallam jële ko ci suñu borom wala boog jibril mu jaar ci jibril ala kulli xaal moom ci cheikh alxaaji omar la jële kon ñi jële ci ñi jokk ci tiwaawoon ñëpp seen tariq seen silsila mu ngi jokk ci Seex Alxaaji Omar amuñu beneen silsila bu jógewul foofu ñoom ci Seex Alxaaji Omar la ñu jële bu fekkente ni waa Madina Gunaas ak waa Dàkka ñooñu ci Tiwaawoon la ñu jële kon ñoom ci Seex Alxaaji Omar la seen silsila jóge Kawlax maam Ablaay Ñas ki ko jox tariqa bi mooy nijaayam Ibrahima Cellel foofu nag man li ma ci li ma yër am na wuute am na ñuy wax ni Ibrahima Cellel ki ko jox Seex Alxaaji Omar moo ko jox tariqa bi am na ñuy wax ni Ibrahima Cellel Abdou Karim Gay al Fuuti moom moo ko jox tariqa bi kon ñoom tamit boo toppee seen silsila dafay dellu ci Seex Alxaaji Omar waaye Abdou Karim Gaye alfuuti boobu moom ñi mu jox tariqa bi ci goxu fuuta boobu ak Muritani bëri na moom mu ngi jëlee ci Muhammadul Xaafiz kon ñaari yoon yooyu ñoo indi tariqa bi fii ci goxu Sénégal bu dee nag tasaare ko ci biir mag ñépp ku nekk am na ci am na ci rôle bu dee côté Saalum maam Ablaye Niass moo ko fa tasaare bu dee côté Tiwaawan Seex Alxaaji Malik bu dee côté feneen ak feneen ma amari ndaak sekk ca cene ba ak bëri na ak sëtu Seex Alxaaji Omar yi ca côté Fuuta ak yooyu Seex Alxaaji Omar al Fuuti Seex Alxaaji Omar moom moo ngi jëlee tariqa bi yoonam bu njëkk njëkk na jël tariqa bi avant Seex avant muy dem ci Muhammadul Ghali maanaam avant muy dem Makka kon ki ko njëkk a jox tariqa bi mooy Abdou Karim Gaye bi Alfuuti Abdou Karim Gaye moo ko njëkk a jox tariqa bi moom loolu moo ko waxal boppam ci Rimah Hizbur Rahim nee na ki nga xamante ni moo ma njëkk a nose ci silku tariqa at Tijaani mooy Abdou Karim Gaye moom moo ko njëkk a jox tariqa bi kon ñu bari moo tax foofu lañu ci moom lañu jëlee tariqa bi léegi nag bi mu demee Makka jëlaat na foofu tariqa bi ci Muhammadul Ghali ci ndigalu Seydina Seex moo tax moom buy wax ba ci buy wax dafay ni su ma neexee ni seex ni seex seydina seex moom a joxal boppam tariqa bi waaye nag ci wàllu teggin ma jaar ma jaar ci ni muhammadul ghali moom moom a jox tariqa bi kon moom tariqa bi daf cee jot ci ndigal ndax Seydina Cheikh moo digal Mouhamadul Ghali mu jox tariqa bi Cheikh El Hadj Omar kon ginnaaw Seydina Cheikh silsila bi jëm si Sénégal Cheikh El Hadj Omar Fouti la Mouhamadul Ghali bu dee nag yeneen yi Mouhamadul Xaafiz moo jox Abdou Karim Gaye al Fouti ak ñu bari ci côté Mauritanie boobu Cheikh Al Hadj Mouhamadul Ghali moom dafa demoon Madina waaye cosaanam du Madina cosaanam Afrique ouest bii la muy alxarbul islaami maanaam ci maghribul arabi Maroc la dëkkoon nekkoon tamit waliyu saalix ñu ko daan wooye Mouhamadul Ghali ibnu Sayyid Mouhamad bu Taalib al-Xasani radiyallahu anhu mu bokkoon ci magu tariqa bi ñi nga xamante ni ci. ñi jege woon Seydina Cheikh la maanaam ñi ni wooyee saxaaba Seydina Cheikh muy tabaqa al ula bu dee Cheikh Alxaaji Omar mu ngi bokk ci tabaqa thaniya ñi ci gën a topp bokk ci tabaqa al thalitha noonu lay demee maanaam ñi nga xamante ni ñoo gën a jege Seydina Cheikh ñooy asxaab ñi ci topp ñooy tabaqa thani ñi ci topp ñooy tabaqa thalitha ba mu gën a wàcc ba ci suuf Mouhamadul Ghali madinatul munawwara fa la joxe Cheikh Alxaaji Omar tariqa bi dañuy nettali ni Cheikh Alxaaji Omar bi mu tasee ak Mouhamadul Ghali joxu ko tariqa bi fañ tasee mais dañu ko dañu dem ba ca rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma joxele foofu tariqa bi mu seedeel ko boppam ba ma xam ni li ma Seydina Cheikh santoon def naa ko moo tax Cheikh Alxaaji Omar cër bu rëy la am ci tariqa bi muy nit ku ñuul muy nit ku weex ñëpp a ko nangul ñëpp d'accord na nit ferenkulaay na ci alxutbaaniyatul uzma dond na Cheikh ci lu amul benn werante ñi ñëw nag ci ginnaaw ñàkkul ku ci nekk werante woo xamante ni am na ci ndax doon na Cheikh wala déet yooyu nag jërul ñu ci sonal suñu bopp lool lool di wa doon seex ci jamono bi te ñun wax dëgg yàlla amuñu ci yu ñu leer ndax question xam-xam yépp noonu lay demee dana ci toll foo xamante ni du am xilaaf am ci foo toll foo xamante ni dafay am wuute gis nga ku gën ginnaaw yonantu bi kenn wuutewut ni Aboubacry ni Siddiq moo ci topp ku gëm ginnaaw Aboubacrin Siddiq ñëpp kenn amul wante ni Omar ibn al-Khattab la maanaam ci jullit ñi ñëpp ki gën nag ginnaaw Omar ibn al-Khattab diggante Ali ak Ousmane fa la werante tàmbalee loolu yéemewut moo tax buñ ne ginnaaw Seex Alxaaji Omar ñi ci des ñëpp wute mën na ci am loolu amul benn problème xëccal sa sëriñ nag bum la yóbbu ci ni diw rek la du diw ndax waxi léeg-léeg fanatique moom daanaka njariñ la bariwul ndax bari na lu nit di yuuxu ca mbedd ma te buñ ko dugaloon ruq du mën a waat ni lii am na ci yaqin moo tax yu ci amul solo ñu bàyyi ko moom moo gën Mouhamadul Ghali nag ku amoon jagle la ci tariqa bi ku ci amoon jagle lool la ba daf daan gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bëri te bëri na ci awliya yi ñoo xamante ni bus bu nekk dañ daan gis yonent bi am na ci wali yu koo xamante ni daf ni su toogoon benn laxza maanaam benn diir bu gàtt te gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul jàppe boppam jullit nga loolu tolluwaay la Cheikh Mouhamadul Ghali gént na gis yoon kii gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan maanaam nekkul ci nelaw mu ni ko anta ibnul habibi mu ni ko yow de doomu soppe nga wa axasta tariqata alxabibi te jël nga tariqa soppe muy tariqa Seydina Cheikh loolu jagle la wali yi nag dañu am ay jagle ci jagle yooyu ku nekk ci ngay rawe sa morom te nag ngëneelu suñu borom ci loxo yàlla la nekk te ku ko neex la koy jox yutihi man yasha moo tax Cheikh Mouhamadul Ghali dafa nekkoon koo xamante ni boroom boroom boroom xam-xam la woon te ku ñime woon Seydina Cheikh la yu bari daf ko ci daan laaj am na bés ndax Seydina Cheikh tamit ku ko ku ko xamoon la am na bés mu toog te histoire boobu Cheikh Al Hadj Omar nettali na ko ci rimaax Seydina Cheikh toog ba ci yàgg mu ni ana Muhammadul Ghali ñi toogoon ñëpp ku nekk naan ana Muhammad ana Muhammad ba ma Muhammadul Ghali ñëw Seydina Cheikh ni qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyillah ala raqabati kulli walillahi taala ah Muhammadul Ghali affaire bi jaaxal ko lool maanaam xadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyillah dafa wax ni sama ndëggu tànk yi kawe na loosu bépp waliyu maanaam ci misaal mooy fu waliyu teg tànkam teg naa fa tànkam ba teg sama tànk fu waliyu tegul tànkam comme lim la doon wax ci ci ci ci xatmiya maanaam naanuwaay bu wali yuy naan naan naa ca te naan naa foo xamante ni awliyaa yi naanul ñu ca Muhammadul Ghali ni ko ah sëñ bi ndax yow sa xel a ngi fi wala déet hal anta fi xaalati saxwi wal baqaa'i aw fi sukri wal fanaa'i ndax yaa ngi fi wala nekkoo fi Seydina Cheikh ni ko sama lépp a ngi fi dara demut mu ni ko ah waaw li nga wax day dégg naa ko waaye day Cheikh alxaaji Abdu kii alxaaji Abdu Qadir al-Jaylaani waxoon na ni qadami haadihi ala raqabati kulli waliyillah nee na ko woon sama ndëggu bi tege na ci loosu bépp waliyu bu suñu borom Seydina Cheikh ni ko sadaqa radiyallahu anhu wax na dëgg mu ni ko ah kon loolu noo koy mën a déggee mu ni ko lim ci namoon mooy ñooñ jamonoom waliyu yi mu jamonoon teel ñépp moo leen kawe woon mu ni ko waaye man nag li ma ci namm amma ana fa aqulu qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyillahi min ladun aadam ila nafxi fi suur mu ni ko man waxuma ñi ma jamonoonteer rek mais ba ñu tabaxee Seydina Aadama ca ban ba ba léegi ba fii ñu toll ba keroog bufta bi wal amut wali yu boo xamante ni moom a supérieur mooy topp ci sama kaw ah Cheikh Mouhamadul Ghali gën a amati lu ko jaaxal mu ni ko ah sëñ bi waa loolu bu bu ko keneen waxee sa ginnaaw nag mu ni ko nag waa loolu bu ko keneen waxee sa ginnaaw nag lu mel ni lii nga wax bu ko keneen waxee sa ginnaaw Seydina Cheikh ni ko kenn du ko wax sama ginnaaw te yàlla def na nag boobu ba léegi kenn waxut lu mel noonu ñu bari daan nañu woote xatmul wilaaya martaba la bu rëy xatmul wilaaya waxtaane nañ ko bële paase waaye ña ko woote woon ñépp ñenn ñi bir na leen ni du ñoom ñeneen ñi dellu nañ ci ginnaaw toog di xaar yàlla moo tax ginnaaw Seydina Cheikh kenn waxut lu toll ni lii mu wax Muhammad ba léegi discussion bi jeexut Cheikh Mouhamadul Ghali ni ko sëñ bi la xat xajarta waasian mu ni ko xatal nga lu yàlla yaatal mu ni kon ndax suñu borom alam yakun illahu taala qaadiran ala an yaftaxa ala waliyin fa yuctihi min alfuyudaati waltajalliyaati walminax walmaqaamaat walmacaarif walculum walasraar waltarqiyaat walaxwaal akthar mimma mimma actaak mu ni ko yow sëñ mu ni ko sëñ bi xam nga am na taalube fu muy toll nag dafay ñimee leerlu ci sëriñam te loolu jege sëriñ ak xam mbiram loolu moo koy waral waaye du ñàkk du ñàkk teggit wala dara bari na nag léegi taalibe bu laajee ñu ni dafay dingat xam-xam amul amul dingat ci dinga du dingat laaj la xam-xam na leer rek donte nag sëriñ maanaam doo ko laaj illa maanaam mu def nangam nga ni ko lu tax nga def ko waaye su waxee sañ ngaa leerlu si alxaaji Malik mi ngi koy nettali ci fakiha wa man yaqul li cheikhihi hada lima fa lam yantafi minhu ma taallama bu sëñ bi defee na nga ni lu tax mu def lii anam di ko sa di di di sàkku mu wax la sabab ba boobaa mën na laa xañ nag barkeb barkeb topp waaye leerlu loolu moom ba xam-xam bañu ko waaw moo tax Muhammadul Ghali ni ko mais sëriñ li nga wax nii danga danga danga xatal lu yaatu suñu borom am kàttan bu ne mën a maye lu ne nga xëy xëy tëj mayam gépp ci sa bopp loolu moom nu mu demee kon da ngaa bëgg ni yàlla mënatu ko mu ni ko déedéet bala qaadirun ala dalik wa aktharu minhu walakin lam yafaalhu li annahu lam yuridhu mu ni ko yàlla mën na lu ëpp loolu mën na koy def ba léegi waaye defu ko dé pour expliquer la ko mu yomb mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën naa bind ku mel ni moom mën naa defaraat ku koo xamante ni moo moo gën yonent bi maanaam ci man-manu yàlla la ñu wax waaye est-ce que def na ko déedéet defu ko loolu la rek wali yu kawe Seydina Seex yàlla mën na koo bind mën na koo indi wàcc ko ci kaw suuf mën na koo def waaye defu ko tout court yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën naa indi koo xamante ni moo ko kawe waaye yàlla defu ko Seydina Cheikh radiyallahu anhu yàlla mën naa indi koo xamante ni moo koy kawe waaye yàlla defu ko li wolof di wax yàlla mën naa rey gileem jaaxaanal ko waaye defu ko loolu rek la te boobu ba léegi nag kenn gisagu fi ku woote wilaaya gu tol noonu mu ni ko kon loolu moom la Seydina Cheikh tontu. moom la tontu Cheikh Mouhamadul Ghali moo tax Imaamul Ghazali ñu bari di ko takfiiral maanaam di ni wax ni dafa weddi yàlla ci wax bu mu waxoon laysa fil imkaani abdau mimma kaan mu ni àdduna bi nii ko yàlla binde ak nii mu organisé woo yàlla mënu mënta def lu ko gën a rafet fi moom li mu ko justifié mooy dañu yàlla bu fekkonte ni mën naa def lu ëpp lii mu def ci bindam ak rafetaayam kon da te defu ko loolu nay la ci suñu borom maanaam la kaana buxlan waaye ñu bari dégguñu fa muy waxe ñu daal di koy génne ci diine ji ndax wax boobu ala kulli xaal mu ngi noonu Cheikh Mouhamadul Ghali ku ñeme woon Seydina Cheikh la ko ñeme woon loolu la ci leerlu moo tax Seydina Cheikh bi muy wax dafa laaj ndax Mouhamadul Ghali mu ngi fi moom tamit Seydina Cheikh ku ko wóolu woon la xam ni bu toogee lay leer du bokk ak bu toogul Mouhamadul Ghali mu ngi génn àdduna ci atum 1244 hijriya maanaam ci weeru hijr bi yonent bi gàddaaye bi weer yi ñu takk bi yonent bi gàddaaye moom moo ñu wax linéaire Seydina Cheikh mu ngi génn àdduna ci atum 1230 kon seen génn àdduna rawante na tuuti Seydina Cheikh moo njëkk a génn àdduna Cheikh Mouhamadul Ghali nag tasaaro tarixa bi bari na ci loo xamante ni ci moom la jaare ndax fi mu nekkee woon mooy bi mu nekkee Madinatul Munawwara bari na ñoo xamante ni ci moom la ñu jëlee tasaare ko fii ci Afrique wa ala rasihim Cheikh El Hadj Omar Cheikh El Hadj Omar ci moom la jëlee tasaare ko ci Afrique ouest wax naa la ni Cheikh El Hadj Omar njëkkoon na jël tariqa bi ci ko ñuy wax Abdou Karim Gaye la njëkk moom muy dem Makka waaye ba mu demee Makka silsilaam boobu moom la itibaar maanaam mooy silsila bi nga xamante ni buy tudd moom lay tudd moom la tudd tamit ci remaax ni ki ma njëkk a nose ci tariqa tijaaniya mooy Abdou Karim waaye ba mu paree buy waxaat dafay wax ni su ma neexoon sax ni Seydina Cheikh moo ma jox tariqa bi direct waaye ci teggin ma ni Muhammadunil Ghali moom moo ma jox tariqa bi ndax ci ndigalu Seydina Cheikh la ko joxe Muhammadul Ghali comme li ma la wax bari woon na ay karaama lool yoo xamante ni daana ko daana ko am nekkul nag yum daan sàkku ak di ko def ak di ko feeñal waaye karaama yi daan feeñ ci moom bokk na ci gis yonent bi daan gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bari te loolu wax naa leen ni bokk na ci karaama yi gën a màgg gis yonent bi wali yu mat wali yu piir wudul gis yonent bi bari wut moom nag bokkoon na ci ñi ko daan gis lu bari moom Cheikh Mouhamadul Ghali kon silsila bi foofu la jaar ci Mouhamad ci Cheikh Mouhamadul Ghali jaar ci Cheikh El Hadj Omar Cheikh El Hadj Omar histoire am moom nitu histoire la. waxuma nag nitu nitu coow la comme ni naa nitu maanaam nit la koo xamante ni dafa liggéey taarix dafa am rijaal yoo xamante ni sanaaw taarix am ñoo xamante ni taarix a leen liggéey waaye moom dafa liggéey taarix moo tax den ko jag jagleel waxtaan boo xamante ni ci moom rek la suñ ci jógee mën nañu jaar ci ñeneen mag ñi mën nañ ko bàyyi tamit dugg automatiquement ci ci surutu tariqa bi maanaam ci chart tariqa bi ndax yeneen mag ñi daanaka ku nekk rek sa maam nettali na la ca loo xamante ni daanaka xam nga ko bu baax kon daal silsila bi foofu la jaar mooy surtout bu dee côté Tiwaawan mooy Cheikh El Hadj Omar wala bokk waaw Mouhamadul Ghali Cheikh El Hadj Omar. Cheikh El Hadj Malick wala bokk imaam Alpha bokk Cheikh El Hadj Malick comme ni ko Cheikh El Hadj Malick waxee wa sanadi an wirdina tijaani mu middi ahli xadrati tadaani sayidina xaali an cheikh Omar an sayidi Mouhamad El Ghali El Abar an tijaani an rasul salla alayhi xaaliqul asil lu am solo la nag nit ki tamit buy jël tarixa bi ñu jox ko silsilaam fu mu jokk. lu ci bëri gis na ñoo xamante ni bi ñu jëlee tarixa yàgg na dañu jekk-jekk laaj ma ni ma man ba ma jëlee tarixa bi yàgg na waaye dama wóoruwul sama silsila diwoo ma ko jox waaye xaw ma fu mu ko jëlee xaw ma ba xam ndax am na ijaaza wala déet ak déet moo tax loolu musiba la tarixa bi fi nga koy jëlee na nga ko yomb na dañuy yaakaar ni sax laaj ko lu rëy la wala dara mais déedéet nit ki boo ko joxee tarixa bi man nga ni ko xam nga am na ñoo xam ne buñ lay sa tarixa bi dañuy wax ni maa ngi jëlee ci diw jëlee ci diw jëlee ci diw jëlee ci diw ba mu àgg ci Seydina Cheikh te yomb na bu dee koo xamante ni dafa jot ko fii ci Sénégal yomb na mun la diwa ma jox diwa ma jox ba àgg ci ci ci ci ci Seydina Cheikh mën nga ni surtout bu jaaree ci silsila bi mooy Cheikh Mouhamadul Ghali Cheikh El Hadj Omar wala boog nga jële ci suuf comme Cheikh El Hadj Malick Mam Alpha Cheikh El Hadj Omar Cheikh Mouhamadul Ghali Seydina Cheikh radiyallahu anhu waaye jël loo xamante ni kenn xamul fu mu fu ijaaza yi jóge tamit doy na waar pour ñu bañ a guddal ñu yamale foofu bind bi incha allahu ba bas yi di ñëw wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu